ah mon frère maa ngi leen di nuyu di leen sargal. waaw maa ngi leen di fay bu baax. alors gis nañ que ni ginnaaw élection présidentielle bi atum 2019 question bi ñëpp doon laaj mooy est ce que président Macky Sall de troisième candidat wala déet bind ko ci livre ni duma ko def dippee ko Sénégal au cœur tey mu yëkkati kàddoom xam ne defu ni mel alors en tant que sénégalais d' abord yëg-yëg nga am ci mbir ni mel. waaw lu may njëkk a wax mooy damay sant yàlla julli seen bi sallallahu alayhi wa sallam. Euh, di remercier le président Macky Sall. Mm. Euh, man président Macky Sall du may wax man suma la man suma xarit la man suma nit la dara boole maa moom lu dul jàmm ak xéwal ak frère mu war ma ko nag ci tous les côtés euh, président yëg na ma defal na ma benn geste bi nga xam ne man pour man moom ma gënal lu ne fekk na ma tuubaa dëkk gi nga xam ne moom laa yaakaar àdduna ak alaxira mu nekk si cortège lu toll président de la République gaare cortège am taxaw woo ma ma ñëw sargal ma kon kooku jox na la cër jox na la li nga liggéeyal Sénégal kon tey bu yàlla defee mu déclaré ni du def troisième mandat loolu alhamdulilahi rabbil alamin na wax parce que Sénégal ñun ñoo bokk nday bokk bàyyi bëgguñu ben ciow wala histoire wala lu ñaaw kon président comme que yàlla may nako xam-xam may ko xol bu rafet may ko nit ki nga xamne ku bëgg Sénégal la mu déclaré bi kon dañ ko war a félicité moo tax man ma jóge suma kër ñëw ba fii ci pale bi nuyu ko na ko monsieur le président ñu ngi lay félicité ñu lay sargal man nag daaw ma politique makki Sall moom ma dugal ci politique ki ma dugal ci politique dëggantaan ñaari nit la ma ànd ak Macky Sall muy Kalaajo Ablaye Ilimane Dia mi génn àdduna nekk suma frère ñu bokk Fuuta moom moo ma dugaloon ci politique ak sama far ba Ngom. may jàppale président Macky Sall. man nag politique. li ma am politique mayu ma ko. sama jom sama fit sama fayda sama lépp moo ma may. ma nekk ci làmb di ñafe ba am li ma am. kon président Macky Sall. aw ma lu ma ciy nëbbatu wala lu ma ciy làq. man Balla Gaye numéro 2. président Macky Sall laay topp ba keroog yow ma xiyam. bàyyi na tey bu ma digalee ni suba demal nga topp diw. barke Serigne Touba moom laay kon mën na jàpp ko ni Baboye président Macky Sall actuellement am na ñetti producteurs yi nekk ci kanamam di Aly Ngouille Ndiaye Abdoulaye Daouda Diallo ak kii nga xam man sama yoon nekkul ci tey bu la waxee da ngay dem ma la sama yoon nekkul ci kenn mhm. man président Macky Sall topp ku mu ne ma toppal kii barke Serigne Touba moom laay topp mhm. man politique intéressé wu ma mais président Macky Sall moom intéressé parce que ci yaram ci tegginam ci bëgg Sénégal ci liggéey Sénégal ku ko waxul doo maa ngi lay féliciter monsieur le président di la encourager di la wax ngàcce ngalaam a jaaraama fop bi président am kenn amul loo ko wax man amul lu ma ko wax ndax ñun fii nañu juddoo màggee fi mm. ñefe fi ba tekki fi mm. gis nañ lu mu liggéey mm. gis nañ ñeneen lu mu fi liggéey man duma ma saaga kenn du ma xas kenn du wax dara aw ma ragal aw ma tiit aw ma frontière fu ma neex mais man Balla Beye numéro deux président Macky Sall rek laay ko Baboye Baboye Baboye lu teewa lu waral sa teewaay tey ah Baboye lu waraloon sa teewaay tey waaw li waraloon sama teewaay mooy dama ñëwoon sargal si suma frère le président Macky Sall xam ne suma xarit la suma lépp la. te sargal na ma fu ne. président defal na ma geste bi nga xam ne moom ma gënal ay milliards. fekk na ma Touba ma taxaw mu gaari otoom. woo ma ma ñëw mu nuyu sargal ma loolu rek doy na ma man yëg ma bëgg ma fonk ma te képp kii nga xam ne sama nit la woon président Macky Sall la doon àndal muy ndam si yàlla Kalaajo Farba Ngom mi nga xam ne suma frère la. Mhm. Euh, Kalaajo mi nga xam ne yàlla na ko yàlla yërëm xare ko àjjana ñëpp xam na ni. tournée bu mës a dem Fouta ak président moom laa doon àndal. kon tey jii bu président waxee ni bokkul man la lool dañuy sant yàlla parce que tey jii ñun ñëpp siggi nañu. ñun képp ku bëggoon. mais yéen da ngeen ne da ngeen waxoon ne ah, Macky Sall ngeen di topp. VIP man Balla Gaye numéro 2. waaw man Macky Sall laay topp ba keroog yow ma man Baboy. sama man Macky Sall laay topp bu bàyyee politique barki Serigne Modou Abdou Mbacké ma bàyyi politique man laa bëgg. ah jëmale Moussa que da ngaa a doon candidat ki nga xam ne mooy. Euh, ba Moussa Ba Diop tegal ñu jël di wax ñëpp a jubóo loolu rumeur la. Mm. waa Pastef ñu ruube. di wax ñi jubóowuñ ñi jubóowuñ APR APR ñëpp a jubóo président da leen woo ba pale yéenay sama njaboot joxante leen loxo loolu jeex na loolu c'est déjà passé jëng na ñëpp a jubóo biir APR bu ñu tegoon Amadou Ba dañ koy jël aj ko ñu teg Aly Ngouille Ndiaye ñu jël aj ko ñu teg Moustapha Ba ñu jël aj ko mais ku xam politique pour bañ la téye lu rek ku xam politique gis nañ Abdoulaye Wade ba muy euh, jógee si pouvoir bi li xam ne mooy ne kon coalition bu mu dafa tas ba mu demee kon est-ce que loolu mënul gis lii lii du tas ni président ñëwee ci réew mi ni xale jeunesse bi téye réew mi ñi ko bëgg niñ ko téyee du tas jamais APR benno du musa tas képp ku dem nag warkat nga ñu ngi leen di bàyyi xel ñoom ma ne ko sàll lam toorool buur gédee du tas yaakaaru kenn gis nga ni réew mi képp ku ñu ko ku ñu mën a jox suñ du joxee Amadou Ba du ñu ànd ak Amadou Ba jusqu'au bout mais pourquoi jox réew kenn du ko joxe ku mérité moo koy diriger non c'est-à-dire euh, euh, Amadou Ba xoola xoola fu mu jaar par parcours am yu mu jaar nit ki da ngay xool parcours am lu mu fu mu jaar nga am yaakaar ci moom war ko jox mbir mu doxal ko c'est ça foofu rek laa ko teg ñi bëgg a def affaire comédie li nga xam mooy langue politique bi na fa roogam daa war a bokk loolu ana loo war na mën a bokk waaw bien sûr c'est le député député la merci beaucoup am na droit bokk jërëjëf député man topp ma kenn président Macky Sall laay fuma président xool loo laay xool fu ma xool loo fa xol waan man première dame moy sama candidat Marième Faye Sall laa def candidat moy sama candidat man. Marième Faye Sall Marième Faye Sall. yow nit ñi di wax Amadou Ba nga ne yow nga gën man Marième Faye Sall laay wër mom lay sef Macky Sall kay may batal dama batal rek ak Marième Faye Sall. nga ni. billaay looloo am di ma waxantu président mom dimbali na ma nguuram mom luma ci wara am am naa ko ci dama ma da dara. nguuram ku koy xarab man bokku ma ci nguuram lu ci wara am rek teraanga am naa ko ci. di ko ñaanal di ko ñaanal nag yàlla na ko yàlla oyofal yeneen bi waan man première dame laay toog. lan nga si am comme lu bari am naa ci embossement am ci CDI yi am ci salaire yi ci laa dégg chargé de mission de la femme Fatou Diané ci laa ko dégg ci bureau président Macky Sall. ak leneen. ak lu bari. oto. oto am naa ko ci. nga ne ma naa ngi sant bu baax yow instant dangay ngaa yor. maa ngi sant bu baax xam nga kan laay ah. dama ko ñaanal gudd na gu wér góor la yaaram la garmi la. def na yëfi noble topp ma kenn première dame mooy sama candidat. donc li may wax mooy sant yàlla parce que mobiliser wuñu woo dañoo wax rek ñëpp ñëw gendarmerie sax ak police ñoo ñu teree egg si euh, buntu palais ba mais engagement rek lañ ci gis. dëgg la ñu woon suñu cofeel ci président Macky Sall. bëgg bu ñu ko bëgg ak fonk bu ñu ko fonk métti na nag décision bi mais dañ koy accepté accepté bi nag mooy ñu koy ñaan mu gaaw tànnal ñu candidat ñu ànd nekk ci liggéey bi parce que sagal bi ñu ko war a sagal mooy candidat bu mu tànn ñu ànd si gagné ko ko wan ko ne dem nga mais sa candidat mooy gagné waa 2024 donc président Macky Sall ñu lay sant defar nga ñu di toppatoo nga ñu faale nga ñu lijjanti nga ñu jang nga ñu politique may nga ñu fit wan nga ñu ngor fulla ak fayda kon ñun say ndaw ñu lay sant di la gërëm sénégalais yi bég nañ sant nañu ñëpp gërëm nañu ñëpp di wax rek nag ñuy woowaat nit na ñëpp ñëw parce que pare guñu fii ba président pare ñun ñu ngi dem pare pour génne ko vous le voyez, les del soutenir Awa Baldé lan ngay wax Awa Baldé lan ngay wax. nuyu naa la nuyu ma ba pare. nuyu naa la bu yàgg. moo def mbaa yaa ngi am jàmm. ñu ngi am jàmm bu baax. comme ni ngeen ko gisee noonu ñoom ñëpp dañoo ñëw si manifestation yi waa